fii ci Tripa nekk ci Afrique du Sud sénégalais yaa ngi fay jànkonteeg ay ay jafe-jafe yu metti ginnaaw bu ñu amee ak jàmbaarloo ak takk deru dëkk boobule sénégalais yee ña nga ñuy xamal que ni municipalité boobu dañ leen a jëlee woon ci seen diwaan yooyu ñu doon jaayee ginnaaw bi la ñu négocier ba delluwaat benn benn commencé doon lal ca noonu la police ñëwee taal seen bagage yi ba noppi jëlee leen foofu ñu nekkoon ñoom nag ñi ngi ñaan ñu dimbali leen ba seen jafe-jafe ñu nekk ñu génn ci. wu neex day mu daw ñëw leen xeexante ñoom dañoo kat seen day quoi tey mu daw ñëw leen non tey moom mu daw tey moom mu daw waaw tey moom mu daw moom da ngeen ñoom wu neex mu daw ñëw leen xeexante ñoom mu mu daw lan laal bagaat lan laal bagaat tey moom mu daw tey moom mu daw waaye ñëwee dana soof quoi sénégal24.net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même soyez le premier à informer sport société actualité politique l'information à sa yow leen si si non tey mu daw tey moom mu daw lan laal bagage lan laal bagage tey moom mu daw tey moom mu daw waaye ñëwee dana soof quoi